فضل اللي فضل في زكاة حتى تزكى المي موي ني باي ديكو غيني دي سوف هو مام المختار موي ني دوندي te loolu mooy al mutaxasu mooy li ñuy jàpp ne ay si ngir dund xaaliban ci lu not asakaay mbay mooy yi nga xam ne ni mën nañ koo bay denc ko di ci dundee yi nga xam ne ni mën nañ koo denc di ko dundee ni ki léjum yooyu moom kenn du ko génnee asaka dégg nga mu ne fa tajibu dana war asakaatu asaka fil xintati ci dégg nga basi wa sha'ir ak saaño wal urz ak ceeb wa naxwiyaa ñu niroog yooyu maanaam asaka dañ ko génne ci ñaar fukki xeet yii bay jàppal na ñaar fukki xeet yi rek lañ ci génne asaka bi ci njëkk mooy xamxu ñii di ko waxinta muy bësi ak sha'ir di saaño urz di ceeb ak pepp mu ñuy wax duxnu amaanaam ni koy wax dugub bu cëgg ak bu ñuy wax alas muy tefam alas ak mboq di zurratu ak dugub di sult xeeti pepp yi yi leen ci génne asaka alxamu wa sha'ir ak saaño am na ñu koy wax ursu ak ceeb wa duxna ak dugubu cëgg wala ak tefam alas wa zurratu ak mboq wa sult ak dugub alxamu sha'ir dégg nga al ursu ak duxnu ak zurratu ak sultu ak anas yi moy xeeti pepp yi génn asaka juróom-ñaari xeet la xeeti sëbi it juróom-ñaar la dañu génn asaka moom lay wax firqataani ak si xeeti ñebbe yi ñoom dañu leen génn asaka kan adas niki adas wal basira ak ñebbe bu ñuy wax basira wal fuul ak ñebbe bu ñuy wax fuul wa ximmas ak ñebbe bu ñuy wax ximmas ak nubiya ak turmus ak julubaan yi mooy juróom-ñaari xeet yi nga xam ne ni xeeti ñebe la ñu ngi gënaate ka mooy hadas ak basira ak fuur ak ximmas ak lobiya ak turmus ak julbaan julbaan yi juróom-ñaari xeet la mu yëpp ay ñebe la danañ ko gënaate ka juróom-ñaar ak juróom-ñaar boo ko booy ba fukk ak ñeent di quatorze sept mooy quatorze wa fi tamri ak ci xeetu yi wa zabib ak raisin dégg nga <coughs> ah tàndarma ak raisin ñoom dañ leen gënaate dégg nga naka noonu it xeetu pepp yi nga xam ne nii dañuy génne diw yooyu dañ leen génne asaka muy zaytun ak simsim ak xabul fujli ak xurtum dégg nga juróom-ñaar boo si boolee tàndarma ak raisin foofu quatorze yi ñu waxoon boo si boolee tàndarma ak raisin mu nekk seize nga teg ñeent yi nga xam ne dañuy génne diw muy zaytun simsim xabul fujli ak xurtum mu nekk vingt ñaar fukki xeet yi daal ci lañuy génne asaka Hmm? Hmm, am diw nag benn lañ tudd mooy zaytun moo tax ma fi tambar ak sàndarma wa sabi bagatin wa zaytun ak zaytun waaye am na yeneen ñetti mbokk muy simsim ak xabdul fulli ahmar ak xurtum dégg nga yooyu la ñuy génnee asaka kon xeet yii la ñuy génnee asaka bu dee dugub yi am na juróom-ñaari xeet yàlla xamoo moom la moom mooy xente ba léegi ak shaayir ak urzu ak duxnu ak alas ak zurratu ak sult am na xeetu ñebbe yi adas basila fuul himmas luubiya turmus julbaan am na xeetu jiw yi pepp yi nag di ci gën a diw muy zaytun simsim ak xabul fujli ahmar ak xortum am na tamr xeet tamr yëpp benn yëpp tamr lañ koy génne asaka ak raisin muy ñaar fukki xeet la ñuy génne asaka dégg nga wala tëji bu du war fil xasabi si mbéjum suukar yi mooy bant suukar yi ban ki nga xam ne dem boo ko xoolee dafay saf suukar kenn du si gën a saf wala boo xoolee ak lawtan yi mooy yi nga xam ne si suuf lañ koy génnee ni ki ñàmbe ak yooyu ñàmbi pataas ak yooyu nga xam ne si suuf lañ koy génnee euh, loolu kenn du si gën a saf wa tiini ak gën wala fawaakih ak fruits yi te rumaan yi ni ki gën a naat maanaam mboolem ñu bokkut ak ñaar fukki xeet yi ñuy wax ni duñ ci génnee asaka amaa gerte nag wuute am na ci dañ ci génnee asaka wala duñ ci génnee asaka waaye wax ju gën a mooy ne gerte gi ci gën a asaka ci gërëm Malick ndax bokkul ci ñaar fukki xeet yi ñu lim te it asaka ci ñuy lim ci ñuy dundee nañ ci gën a asaka te gerte boo xoolee ci lëju mi la bokk wa nisaabul xarsi nisaabu mbay xamsan aw suqin juróomi ndabu soxla waaye moom alfu ritrin mooy juróomi ritre juróomi ritre wa sitti meetar ritrin ak juróom benn téeméer ritre bil baxdaar yi ci nattu baxdaat kullu litin bépp litin mi atu dërëmin dafay tolloo ñaar dafay tolloo téeméeri dërëm wa sama juróom ñett vingt sama ñaar fukk dërëman ci dërëm bi bi dërëmin màkk yi ci dërëmu màkka woowu moom dërëm màkk woowu xam suna juróom fukk la wa xumusa habbatin ñaari xumusu pepp mais chair ci saaño al mutawassita al mutawassiti bi aji diggu doomu nee na am ku bàyyi dara balaa nga cee war a foo mu mat juróomi ndab wusux juróomi ndab wusux nag si ñoom mooy junneey ritre ak juróom benn téeméer ritre seen ritre boobu ritre bu nekk rek dégg nga euh, dalaan toll téeméer dërëm ak ñaar fukki dërëm ak juróom ñett dégg ci dërëmu màkk dërëm bu ci dërëmu màkk yi boo ko doon peese daf daan pepp ak ñaari xumusu pepp ñoom seen xaalis yi dañ ko doon natt ci ay pepp boo jëlee juróom fukki pepp ci peppam saañoo bu digg doomu bi nga xam ni tooyut bopp waaye wowut bopp nga jël juróom fukki pepp ak ñaari xumus pepp xumus mooy nga xaaj ko juróomi xaaj xaaj bi nekk la nga jël foofu ñaari xaaj boo ko xaaj juróomi xaaj juróom ñaari xaaj ak juróom fukki pepp boo ko tegee ci balance jël benn dërëm peese ko ñoo doon tolloo ndax loolu boo jëloon litre ci pepp Euh, euh, teg ko witr boobu li muy mooy téeméer dërëm ak ñaar fukki dërëm ak juróom ñett si dërëm màkk boobu seen dërëm dañ ko doon peese ak ak ay yooyu dégg waaye loolu ñoom sen nattukaay la junneeg witr boobu moo ak juróom benn téeméer witr nattukaay baax la dégg nga ñoom it ñoo doon ak pepp yooyu lañ naan tolloo poids waaye ñun nag euh, juróom la bu sax mën nga ko jàpp juróom benn yi juróom benn bërigo daal ci gàttal mooy juróomi ndabu wusux boo amee juróom benn bërigo rek asaka war na la dégg nga <coughs> boo bayee nag li nga am motu juróom benn bërigo asaka waru ci waaye damaa soo sabaru naka beneen xalam ala wusuxu dégg nga wusux yi mooy juróom ndabu wusux yooyu di tolloo juróom benn bërigo si ñun baada wati ma fiya ci nekk mi ne xasafi ay xetax waru tuubaat ak tooy tooy dégg nga bu fekkee nag eh, balaa ngaa xool ndax am nga juróom benn bérgoom déet da nga koy eh, bu dee eh, dégg nga dégg nga lu kii la bojj la comme dugub fa nga génne xetax yi ba pare topp mi mat juróom benn bérigo nga door war a asaka ci loolu dégg nga hmm? waaw foo laa ñu xool ne buñ génnee xetax yi yëpp loolu dana mat juróom benn bérigo ah ñu door see war a asaka bu fekkee buñ génne xetax yi du mat juróom benn bérigo te su boobaa asaka waru ci dégg nga waaye nag dàqwante wun nag bu la leeree na man na juróom benn bëri bu gannaaw boo génnee safara bu la neexee pepp mi nga ay takk fukki takk yu nekk rek nga génnee benn loolu it euh, dara nekku si ndax boo xoolee li nga bay rek fukki lu xaaj bi nga génnee boo ko xoolee amul benn wutee dégg nga naka noonu bu dee lu tooy la foo nga xaar nattale ba bu woowee ndax dana mat juróom benn bërigo mu ne wala déet ndax mën naa tooy ma mat juróom benn bërigo te bu woowee du mat moo tax foo nga nattale ndax boo weeree na juróom-benn bëri gum déet pour door si war a mën a génne asaka wal muxraj la ñuy génne min zakaati xaati ca zakaay mbay alonso mooy fukkeel ba si ma suqee ci loo xam ne yam na ko min gayri mashaqatin ci lu coono ka maayi samaay ni ngi ndoxum asamaan wala sonsi wala genn wàllu fukkeel si ma suqee ci loo xam ne am na lañ ko di aayatin ci jumtukaay ka dawaali bi ni ki roosee kaay dégg nga la nga war a mooy boo bayee ba ma juróomi juróomi benn barigo muy juróomi ndab wusu dañuy xool la nga bay yépp bu fekkee yàlla ji maanaam asamaan moo taw dégg nga ci nga ko naanaree ba mu ñor wala boog ay sewnde ñoo ñëw di fa di ko roose teew sonnoo si ni ko sewnde yi rek ñoo ñëw ba ci biir ñor bu dee daa amoo ci benn coono su boobaa dañ ne la nga bay yëpp xaaj ko fukki xaaj nga jël benn xaaj bi joxe ko asaka dégg nga boo nee nga ko par pot fukki pot yu nekk nga génne benn par saako fukki saako yu nekk nga génne benn par barigo fukki barigo yu nekk nga génne benn barigo nag mooy téeméeri kilo dégg nga <coughs> juróom benn barigo mooy na buusu mooy juróom benn téeméeri kilo juróom benn barigo mooy juróom benn téeméeri kilo si ko xamul barigo dégg nga waaw kon daal li nga bay xaaj fukki benn xaaj bi mu génn baax na boo ko defee rek baax na naka noonu it su fekkee yaa ko doon rooseel sa wala yaa doon fay ñi lay rooseel ba nga xam ne daal la naandal tool yi ba mu ñor am nga ci coono soo baa dañ naan dañ la may mm, sa coono mooy li nga bay xaaj ko fukki xaaj li jël benn xaaj bi xaaj ko ci digg bi te loolu lépp benn bi nga génne ko asaka li nga waroon génne mooy da nga ko doon xaaj benn xaaj bi génne ko asaka waaye dañ naan la comme que sonn nga si boo ko xaajee fukki xaaj benn xaaj bi xaaj ko si digg bi tey génn wàll génn wàll nga jox ko miskin waaw ña maanaam ñu ngi ko war a jox dégg nga kon ya wàllu fukkeel ngay génne bu fekkee yaa nandal sa bopp waaw wala boo am nga si coono ni ko yaa fay ñu nandal ak yu ne noonu bu dee moo si benn coono nag xaaj ko fukki xaaj mu génn fukkeelu xaaj bi faasul yaa fasala la fii bayaani man ci leeral ki nga xamante safu danañ jox loo ñel ko zakat asaka pour foofu danañ ko يا الأصناف كان يعني في قرية أسمعنا في رجل المت المذكورين يرين كله في قوله سواك عزيزي تعالى وقامنا إنما صدقاته نكا أذكي للفقراء فقراء يلا وينكي والمساكين المسكين الآية بلا يجيخ ما نام أذكا دارين كو جوك كان في جرمي تكارين خمنا القرآن تبنا لهم من جل لي جو أذكا كيسنجك ماي أول كيسنجك الفقير ما يكون يك وهو الذي ما يخمنه يملك دنم وما شاء دارا اليسير لنيو الذين يخمن لا يكفي دكو دويل عن شيء دنم وإن كان دينا نكنا يملك دموم نصاب النصاب لا يقوم غرم دمون دن بيشموم ولا بعيالي بشان الجواتم كأدمي فإن الله نكن يالكو أن يأخذ مجل الزكاة الزكاة الزكاة ينكو ويجب كتنجك موي كنياك كان موي كنياك كنياك موي كنياك كنياك موي كنياك موي كنياك موي كنياك موي كنياك موي moom ak njabootam bu dee moom kes la dana ko doy waaye bu dee moom ak njabootam du ko doy dund si at mi su boobaa kooku ku ñàkk la asaka war na ko kon képp koo xam ne amoo dépasse at yow ak sa njaboot su boobaa war ngaa jël asaka ndax ku ñàkk nga asaka war na la asaani ñaareel ak al miskin mooy miskin woowu moom axooju moo gën a aajoo mais faqir si ku ñàkk moom alladi mooy ki nga xam ne laa chee déet dara miskin jumlatan mboolem seen moo ko xam ne laa chey di dara loo diko ñeen jumlatan mboolem seen miskin war naa jël asaka mooy koo xam ne amul dara moom moo gën a soxla kon ku ñàkk parce que ku ñàkk faqir am na dara waaye am doyut ko ci at mi doyut ko dépassé ci at mi moom ak njabootam miskin nag mooy ki nga xam ne nii amul dara saafi ne déedéet miskin kay am na dara ndax alquran dafa wax ne dégg nga amma safinatu fa kaanat li masakina yaamaluuna fi lbahri dégg nga miskin ñooñu ay miskin lañ waxoon nañ ne na seen lim waxoon nañ ne toll na ci fukki miskin yoo xam ne amoon nañ gaal goo xam ne ñu ngi si doon liggéey ci at mi kon kay ñooñu am nañ am nañ dara dégg nga <coughs> ndax ko am métier am nga dara waaye Maalik daal gis na ne yàlla woon naa ni za matraba miskin mi nga xam ne dafa takk suuf kon maanaam mooy koo xam ne yoru dara rek yoru dara kon kooku mooy miskin ala kulli halin wute nañ ci waaye ba léegi dàqwante wute nga Maalik wax ndax Maalik daal dafa jàpp ne mooy miskin mooy koo xam ne amul lu dundee xam nga ne nag métier kay mënu cee dund métier moom foo nga am ci xaalis wasiila la pour xam loo dundee waaye nekkul ne ko am métier rek xam nga loo dundee kon li ko ndax métier Maalik waxul ne miskin mooy ko amul métier déedéet miskin mooy koo xam ni xamul sax lu mu dundee moom dara faqiir na mooy koo xam ne lu mu dundee waaye doyut ko ci at mi loolu la Maalik wax jar naa seetlu bu baax moom miskin mooy koo xam ne amul waaw amul it pepp amul daal lu mu dundee hmm? dara bay ba moo xam ñaari fan ak ñetti fan kooku daal bu xëyee du am départ miskin amma koo xam ne nag dégg nga am na lu mu dundee waaye matu ko ci at mi kooku faqiir waaw kon maa ngi nangu na ne miskin mën naa am métier waaye nekkul ne ko am métier rek am loo dundee léegi mën naa am métier te bu xëyee du am dara ci métier mi ndax métier mi nag moo war a boog bëriwul wéccet kon ba léegi eh, dégg li Maalik wax dàquut waaye li Saafi wax it lu wér la mooy ne miskin it mën naa am métier waaw ndax am na miskin yow man gaal di ci liggéey kon loolu waa kaana ko saxal waaw ñaari wax yëpp wax yu dëgg la way saaru sarta lañ fii ci faqir wala boog fii ci miskin wa fil faqir ak ci faqir muy ku ñàkk al islaamu doon julit wala xoriyat ak doon gor naka noonu ñu bañ a bokk ci dégg mm, mm, mm, banu hashim famille yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñooñu kenn du leen jox asaka dañ leen jox ci baytu maal nee na ka ñuy jox asaka <coughs> bu dee ku ñàkk la il faut mu nekk julit bu dee xefeer kenn du ko jox asaka naka noonu foo mu nekk gor bu dee jaam kenn du ko jox asaka <coughs> ndax jaam umu euh, alal sangama moom alal ji dégg nga dégg waaw kon sàpp il faut ñu euh, sàmmante ko dégg nga assaalisina te alaamina mu aji liggéey ala zakaati ci asaka ji ka saa yi ni ki jaraaf ji wen kooku danañ ko jox asaka wen kaana di la nekk na xanniyan di aji riis ki nga xam ne nii mooy liggéey ci asaka ji dem di ko jëriñ ak ki nga xam ne moo koy tasaare yi demee noonu ñooñu leen lañ jox asaka mu tolloog seen fay rek dégg nga ñoom moom dina am nañ xaalis sax dina kooman lañ danañ leen jox asaka ndax loolu mu ngi mel ne liggéey loo leen rek fay leen raay boo ñeente woon mu àllafatu mooy ku ñu miinal xulóomum seen xol boobu ñoom xaw ma aw nit lañ ku faaru dañ leen jox tarixa man ngi xemam loo leen ci islam yi et ci l'islam dégg nga dégg nga nee na ñeenteel bi mooy ku ñuy miinal xolam noonu ko alquran waxee nee na man ñooy ñi nga xam ne xéeféer lañ dañ leen jox asaka ngir xemam loo islam ki nga xam ne xéeféer la ñu jox asaka ngir bëgg mu dugg islam loolu mën na nekk waaye daal li gën a kii daal saa yu islam moom am na doole jël sut campagne nañ jël asaka ji rek jox ko ñi nga xam ne ñoo dugg ci islam bees ngir seen xol gën a dëgër ci bu rafet la kon kuñ miinal xolam mën nañ ko firee koo xam ne dugg na ci islam bees ñu di ko jox asaka ngir xolam gën a dëgër ci islam am na sax dañ koy jox ngir mu gën a bëgg islam loolu taawil taawil la dégg nga <coughs> alxaamisu juróomeel xaagu mooy jaam waaye moom araqiqu mooy jaam al mu'min bu gëm yàlla bi straada dañ ko jënd wayam takku ñu goyal ko wala woo kim tefamil muslimina ñeel na jullit ñëpp juróomeel ba si ñu jox asaka mooy baatu jaam maanaam danañ dem jël asaka ji jënd ci jaam goyal ko kenn du ko jox jaam loolu waxoon nañ ko waaye danañ ci jënd jaam goyal ko dégg nga kon asaka mën nañ cee jënd jaam su ko defee goyal ko loolu mën naa nekk dégg nga buñ ko gëree nag boobaa julli ñëpp ko yilif rek xam nga nit bu fekkee dem na ba nga amul euh, génn àddina amul kenn nga su boobaa su ko gëree doon mën na ko doon mën naa jël alal ji waaye kii moom alal ji béytu maal muslimin la dem euh, ndax julli ñëpp ñoo ko bokk dégg nga alal ji alal julli ñi lay nekk bu fekkee euh, génn àddina te amul ñu ko doon moo tax mu ne kilifteef gi waaye nekkul ki ko jëlee ci asaka ko أسأل زيرم بلالا الغارم مأجي لب لب أجي برو وهم من مكياك من سلانا لبنا يغير سفين شنو الدفع ولا فتار نجاك يق ولا يجب تأمت وفعل مت برم أو يكون هناك ما وان ممال على الجزائر دي بطول برم رك نكون عنيس كل لب درين كديوم أفتار ما يقول بمي لب دفع تخطر ملب ما نام نوص نعم. لب تحوالي lool loolu taxuloon ko leb dégg nga waaye ba mu ba pare lépp farata la moo ko taxoon lépp waaw kon il faut ñu xool la nga taxoon lépp ni ki dundal njabootam loo xam ne farata la te ñaari ba mu lebee ba pare amul lu mu fayee hmm? wala bit ah la ma am ci moo tolloog bor bi xam nga bu dee la ma am ci alal moo tolloog bor bi kooku bu fayee léegi faqiir la ku ñàkk la wala dafa miskin la dégg nga su boobaam ko jox asaka asaar moo juróom ñaari ba sabilillahi mooy yoon yàlla wal muraad nag la mu bii ci yoon yàlla al jihaad mooy jihaad doonal xaj ji wala si aj kon juróom-ñaareel ci ci ñu war a jox asaka ko jox kuy aj ko jox association yi nga xam ne yi liggéeyal islam kenn du ci bënn teen kenn du ci tabax juma kenn du ci tabax école asaka daal kuy jihaad lañ koy jox mu jëm si yam war a jihaatee yooyu lañ ko jox moo tax fooy foofu lañ ko jox li xaasi ñaay ji xeex aji xooman kaan la nekk aw faqee wala ku ñàkk danañ ko jox min sadaqati ci asaka ji fooy foo danañ jox li xaasi ñaay ji xeex kan yaa ji jox min sadaqati ci asaka ji maa dina xam ne fi ko dana ko moo dundale fi xas wi ci ci jihaatam boobu ci xarem boobu kon comme que xare gi moo tax ñu koy jox suba ñàkk naa am na loolu intéressé wuñ ñu moom daal lu ko dimbale ci ci xare bi dañ koy jox kon ibnu euh, dégg nga sabilillah yoon yàlla kuy jihaat la ko ngir am maa waaye euh, du leneen lu loolu kon li ma la waxoon rek mooy ñi nga xam ne ni dañuy aj màkka ak ñi taw jumaa ak yooyu yëpp kenn du leen jox asaka ngir ñu def si loolu asaami juróomi tal ibnu sabili mooy doomi yoon boobu mooy musaafir mooy tukki al garibu ku tumuranke yoon sax dañ ko jox asaka si salaasati shuruutin si ñetti sart kuy tukki ko jox asaka su fekkee dafa jeex nga xam ni mënul continuer tukki am su asaka si ñetti charte bu njëkk bi an laa yakuna mooy mu bañ a nekk ma tukkeem fi marché dañ ci mooy yàlla dégg nga bu fekkee tukki mi du mooy yàlla dañ ko jox asaka boobu mooy charte bu mi mooy yàlla nag kenn du ko dimbale ci mooy yàlla googu di ko jox asaka mu di ci continuer tukki mooy yàlla moom loolu kenn du ko def lu mooy mu tuub bu dee dafa tuub nag ah su boobaa daañu ko jox asaka jum dégg nga wala wala boobu bu fekkee fu mu jëmee euh, gannaaw ga nekkatul mooy yàlla it ci tuub na suba dañ ko jox asaka ji mu continuer la muy def dégg nga bu dee du mooy yàlla bu fekkee mooy yàlla la waaye ragal nañ ne buñ ko bàyyee mu dee ah su boobaa it danañ ko jàppale waaye fexe dox diggante moom mooy yàlla googu danañ ko jox asaka waaye diggante moom mooy yàlla googu danañ ko jox ñu ñu jàppale ko delloo ko mu ñibbi wala demee noonu dégg kon charte bu njëkk pour ñu jox ko asaka moom kuy tukki te ñàkk te mooy moom kuy tukki mooy tukki mi bay nekk mooy yàlla waaye yekku ak mu nekk fa xëyan di ko ñàkk bi mawdi yi ci barab alladi mi nga xam ne foofu moom bii ma ngi fa ñaareel ba mooy barab ba mu nekk dafa nekk ku ñàkk bu dee dafay tukki te mooyul yàlla dafa mu nekk xam na fa koomal na su boobaa kenn du ko jox asaka dégg bu dee mu nekk dëkk ba mu nekk koomal na fa duñ ko jox ba mu nekk dafa ñàkk rek ah su boobaa am na ñaari sart pour ñu jox ko asaka mooy mooy di yàlla si dëkk bu mu nekk dafa ñàkk wenkaan di la nekk na ran yéen day joxoo man di bëri di ca dëkkam ba mu dëkk dëkk ba mu jógee duñ xool am na mu nekk rek ci tukkeem mi foofu la ñuy xool am na fa wala amut fa mu nekk daal bu dee am na fa boobaa kenn du ko jox asaka bu dee dafa ñàkk ah su boobaa dañ ko jox asaka di la dëkk ba mu jógee am na ñetteel mooy wàllaa ji mu bañ am mali salif ma ku ko lebal way sadaku dañ ko dëggal da daa bootee andoona moom ibnu sabilin doomu yoon la ñetteel bi mooy mu bañ am ku ko lebal foofu nag gën naa xool mooy su fekkee fu mu jugee am na fa te fii mu nekk am na ku ko lebal bu lebee dana a fay ah su boobaa kenn du ko jox parce que ndax dafay leb kon ñetti kéem bu ñu dee fay waaye bu dee fu amu fa dara nga xam ne fii mu nekk am na ku ko lebal sa waaye bu lebee du mën a fay kooku faqir la rek dañ koy jox asaka duñ ko duñ ko bàyyi muy la du mën a fay su boobaa mu yëgaa rek nga xam ne leen jox asaka ndax ku leb te dese taxut boo mënu fay dañ leen gën asaka kon bu fekkee bu lebee du mën a fay ah su boobaa dinañ ko jox asaka kon daal kuy tukki danañ ko jox asaka su fekkee tukki bi du moo yàlla te ba mu nekk dafa ñàkk dégg nga te ku ko lebal wala boog xam na ku ko lebal sax waaye bu lebee du mën a du mën a fay su boobaa danañ ko doon fekk boo xëyee nag la dafay tukki danañ ko dëggal duñ duñ ko weddi boo xëyee ibnu sabil la rek ñu war koo jox ci azaka ji dégg waaw <coughs> amaana bu ñu amee tegtal bu wóor na du ibnu sabil ku waa kenn du ko jox azaka waaw ñi ki xam ñu ko seede ne du ibnu sabil dafay naxante yu boobaa kenn du ko jox azaka ibnu sabil nag mooy koy tukki te ñàkk dégg nga xamutul lu ko lu mu continuer tukkeem mi lu mu fasul yaa fasala yajuz dana dagan ixraaju zahabi génne wurus an waraqi mu wuutu xaalis wala waraqi ak xaalis ani zahabi mu wurus xaalis wurus daal mën nañoo wuutu wante ci asaka nga war a génne xaalis wurus wala nga génne war a wurus génne xaalis loolu moom war naa war mën naa nekk wa tajibu war niyetu zakaati yéene asaka asaka boo koy génne da ngaa war a boo jëloon ab xaalis jox nit gannaaw ko sa xel dañ ne waroon ngaa génne asaka lu toll du baax ndax jamono ba joxe yéene ko asaka kon il faut rek asaka jur na wax ki ngay jox asaka ne ko asaka laa jox man nga ko yéene rek jox ko noonu dégg nga <coughs> wa tafriqatuha ak teqale ko maanaam dana war nga joxe asaka ji bil mawdi ci barab allazi bi nga xam wajab waree na fii ci moom wala yajuuzu daga naqluha toxal ko xanu ci barab boobu illaa nekkoon mais mu nekk mawdun ak barab axaro bi bii nekk ni fuqaraaw ñu ñàkk ashadu ñu gën a tat indaaman ak ñàkk fa ñoo nag asaka yoon tax joxe minaa barab boobu lu muy xasee noonu nag lu muy mbir te mbir yoon daal danañ ci asaka ba fii moo doon wujjum bi ci barab ba mu waree wéyum tool ñu toxal ak sorwaa la gën a bëri li aadam yi ci ñi gën a ñi gën a ñàkk. asaka barab bi nga xam ne fa lañ ko war a génnee dégg nga ni ki barab bi nga xam ne fa la alal ja nekk ak ka moom alal ja foofu lañ war a génnee asaka ji. ni ki yow borom xaalis nga war ngaa génne asakaay xaalis te yaa ci barab. su boobaa fu nga war a génne bu dee mbay la nag moom fañ ko bayee rek foofu lañ ko war a génne dégg nga waaw te foofu mooy soixante douze kilomètres yi la wër soixante douze kilomètres yi la foo ko si génnee rek foofu baax na dégg nga nag foofu dëgg ga am na ay ñàkk ña fa nekk waaye am na barab bu génn soixante douze kilomètres yi la wër te fa nekk ñoo gën a kon da nga jël dara tuuti joxe foofu la ëpp nag nga yóbbu ko ci ñi gën a ñàkk daanaka que ci rek moo ko gën a soxla mais lu tey foofu foofu moo waree da nga fa génnee dara la ci des nga yóbbu ko ci ñi a ci ñi gën a ñàkk. faslun yaa fasala la ida ansala nem ber naa zakat azaki andal xawli si jamono at fa daan mu sànku lam man du ko war bu a avant at mi mat la ber asaka ja wala boog jamono bu at mi rek la ber asaka ji wala at mi ba matee ba benn bis ba ñaari bis la ko ber bu asaka ji réeree wala ñu lakk ko wala yu demee noonu te moom sàgganul si wëttu ko ni ki denc na ko denc bu baax su boobaa dégg nga ah dara waru ko warul muy génnawaat asaka dégg nga way na asala ah, ndem ber na ko ba dara xawli gannaaw at ma nag damina warlu na dégg nga fekkee nag at dafa mat xaar mu am ñetti fan mu door a ber asaka ji denc ko a ah, bu yàqoo dana ko génnee dana génnewaat ndax dafa sàggan ba asaka daal bu waree rek mu si ko war a génne te moom xaar na ñetti fan ah, mu door ko génne euh, ber ko tuuba dañ naan ko da nga génnewaat da nga war rek jox miskin yi wala boobu ba at rek ci la war dégg nga nga day gis ne bu fekkoon jur la at mi mat te am na jaraaf am na kuy asaka ji ba am ñetti fan mu ber ko ngir xaar jaraaf ji ah loolu bu réeree dégg ah, su fekkee waaw bu réeree su fekkee dégg nga ah, dafay wa gàtt yi wàññeeku ñeen fu gàtt su boobaa jaraaf ji bu ñëwee du jël dara ndax dafa ñëw fekk mu wàññeeku te war a gut dégg nga ki moom ñeen fu gàtt la amoon génne benn pour xaar jaraaf ji xat mi mën na gaa waaye jaraaf ji ñëwagut ko asaka war a gut ko bu benn gàtt googu réeree ah su boobaa it jaraaf ji bu ñëwee loolu manqué du ci génnee dara waaye bu fekkoon it mën na ñeent fukki gàtt ak li des ak ak lu teg ñu ngi ñeent fukki gàtt ak ñaar wala ñeent fukki gàtt ak benn mu génne benn pour xaar jaraaf ji boobu réer ah mu ngi mel ni daf ko génne te waragul rek kooku bu jaraaf ji ñëwee bu fekkee mu mën ñeent fu gàtt su boobaa it a génnee asaka ndax ba jaraaf ji ñëwee la war dégg comme ku ba jaraaf ko war a lañ ko war a génne kon daal nga dee gis ne bu doon gàttal moom bu gàtt yi sànkoo manqué ñeen fukk gannaaw bu at mi sax waaye manqué ñeen fukk te jaraaf yi a bu jaraaf yi a du jël dara dégg a noonu la asaka ji daal bu at mi matee ba am ñetti fan nga ber ko bu réeree yaa war a génnewaat koy xam sa daa nem ber ko su ma daa toog mu sànku ci saanam xam lay xaajaa njëkk mu koy génne fay noonu rek moom ret dana ko jox mu mas ko ju leer bay bay ñeel boromam su fekkee dafa ber asaka ji ko defee nag alal jam réer ba mu def asaka ji ah du tee it mu wéy jël jox ko borom ndax moom loolu mu ko moom alal la moo sànku waaye alal miskin sànku dafa amoon xaalis ber asakaam nu asaka ji mën a toll bu alalam yëpp réeroon it ah taat mi jeex na ba mu ber asaka ji asaka jooju foo mu war koo jox boromam waaye bu doon at mi matagut nag bu asaka waragut mu ber asaka ji te at mi jeexagut alal la yëpp sànku balaa at mi su boobaa moom asaka ah waru ko daa fa at mi di ko dese matul nisaab dégg nga comme li ñu waxoon rek ci alal ji réer ba li des jaraaf si solo ñoom dégg nga woon dee xam ne ixraaji zakaat yi njëkk muy asaka ah. dégg aw aw saa wala mu dénkaane biyaa ci asaka fay naa nag moom muqtuqas danañ ko jël melaa si maari ci bopp àllam dégg nga dégg nga dafa génn àddina te génnee gut asaka te asaka ji it war bu doon tapp tapp mi dem na ba ñor ba neex wala bu doon alal wala muy gàtt mat na at su boobaa mu dénkaane ne nañ ko génne asaka su boobaa dañ ko war a génne asaka dégg nga dafay war ñi ko génne asaka balaa ñëw miiras dara dégg nga su boobaa dañ génneel asaka kon daal ñu ngi daal la ngay rek bu fekkee daal asaka war na ko <coughs> dégg nga balaa muy génne àdduna asaka ji war na su boobaa danañ ko génneel asaka jooju ci bopp alal ji ñuy miiras balaa ñuy def dara naka noonu su fekkee moom dégg nga daf koo dénkaane gannaaw ba asaka ji waree mu dénkaane asaka ndàngam war na ma a su boobaa it ko génnee asaka ci bopp alal ji balaa ñuy def dara naka noonu it dégg njaboot gi bu fekkee xam na ni kii kat at million na war naa génne asaka te génne gur mu génne àdduna wax na ci dara waxu ci dara it ñoom war nañoo xam ne asaka ju teew la balaa ñuy séddale alal di ko miraas dégg Hmm. loolu mooy danañ ko jël alal jooju asaka jooju war ko mu war koo génnee wala mu dénkaane woon ko gannaaw bu waree danañ ko jël ci bop alal ji amaa nag bu dee asaka ji jotagut waxtu asaka ji jotagut mu génn àdduna kooku moom alal jooju eh, eh, dañ koy miraas rek dégg nga ku ci am at nag nga door a génnee asaka dégg nga waaw ku am at rek nga door a génnee eh, asaka bu doon luñ bay la te ñoragut ah su boobaa it dañuy xaar moom ñor rek buñ ko séddalee ba pare bu ñoree ku ci am nisaab nga war a génne ku ci am lu mut nisaab yow génne dara bu doon alal la nag te motugul at mu génne àdduna su boobaa it asaka waru ci dañuy séddale alal ji rek bu defee ne ku nekk la yor bu amee at nga door war a génne asaka dégg nga waaw bu dee nag wàllu la su boobaa loolu a bu ñoree daal buñ ko séddalee daal ku ci ñor rek boo amee at nga génne asaka boo am boo amee kon lu man nisaab bu ñoree boo amee lu man nisaab a asaka bu mut nisaab asaka du la war dégg nga su fekkoon it jur la naka noonu it te asaka waragu ci ndax matagul at dañ koy séddale euh, su boobaa it ku amul ni man nisaab dégg nga talam xamoon matul nisaab du génne asaka bu fekkee yow la nga xamoon ci jur matul nisaab wala xamoon jur sax te lañ la jox matul nisaab loolu yëpp aussi génne asaka su fekkee nag la nga xamoon Euh, man na nisaab nag dañ la jox bu manqué nisaab bi da ko boole la nga xamoon euh, bu la nga xamoon bu at mi dee nga bu atam dee nga génne ko nga génne lii asaka dégg nga masala yooyu danañ ci gën a danañ ci gën a ñëw waaye saabu sopp nañ suñu rakol tatawu ca ci asaka yi sa rako coobarewu asiru yalu wa sarfa jox ko li aqaalim ñeel jege ñaar yi wal jiraan ak dëkkandoor yi wa tasa akaru dana gën a faree fi ci ramadaana ci weeru koor saraxaay coobarewu maanaam saraxee sarax goo xam ne ya ko def rek warul la kooku sopp nañ nga nëbb ko joxe it jegeñaale yi ak dëkkandoor yi rawatina nag ci weeru koor ci lañ gën a bëggee soo suñ la fasara la saraxatul fitri asakaay muutam koor waajibatun war la faradaha farataal na ko rasulullahi yonent wa sallam yàlla ko yàlla dolli xewal te musal ko te jibu dana war bi awal leeti si jël benn bi awal leeti xadim fitri si jël benn guddi فاتو كرسيني نلا هذه القولين تلين تنار وهي المشوعني ينشيوه ولا آخر بين الوحبي ما يتجيب دنور بطرين فجرين فجر يوم بطرين فجر يوم يعيبي تقرق فجر بسب كرسيبا فانا بسب شدبا هذا كان المتمكور سنة صور له واجب سنة كل سنة صور له سواء كما ينمت بسلاة موكو دوغل kañ la war nag nee na bu bu timis jotee buñ ne suba la korite timis bu jotee guddi googu ci la wa ci lañ ko war a génn teewu nag boo ko génnee benn fan wala ñaari fan dana doy dégg nga boo ñaari fan wala benn fan avant ñuy korite du tee dana baax dégg nga daal nee nañ guddi bu gi ci nga ko war a génn maanaam bu ñu ko loolu wax ji siiw la beneen wax ji mooy ne bu fajar jotee bu ne tay la ko dégg bu fajar jotee bis boobu a génne ñaari wax yooyu moo ci am guddi gu ñu suba la ko def lañ ko war a génne ñu ne dee bu fajar jotee bis bu ñu war a ko def bu fajar jotee ci lañ ko war a génne kooku ñaari wax la waaye wax naa ne boo ko génnee ñaari fan avant Korité it dana baax wa faydatul xilaafi njariñ wuute bi tazaru dina feeñ ci man maata ci ku dee aw wulida wala ñu jur ko aw aslama wala mu jébbalu aw naxwi zalika wala yu yooyu njëriñ ñu gu nekk ci ñi eh, ci njël benn guddi gi la ñi ne ci gannaaw bu fajar xare ci bisab korite gi maanaam ñi guddi gi ñu ne suba la korite la ñi ne gannaaw bu fajar xare ci yi ma wax lay ci ku juddu wala ku dee wala ku jébbalu wala kuñ takk wala kuñ fase wala ku xoomal wala ku ñàkk ñooñu lay feeñee moom nag dafa wuteeg <clears throat> julli xam nga waxtu julli bu warutoon su waree ci biir waxtu bi rek julli boobu war nga koo julli bu dee xeefeer la bu tuubee ci biir waxtu bi te la ci des mën na cee sangu déedéet moom sax du ci nattale sangu ko yooyu ci des mën na cee benn rakk rek soo baa julli julli boobu la koy war xeefeer bu tuubee te la def ci waxtu yi mën na ci am dàkk julli da koy war jigéen bu setee te la def ci a yi mën na cee sangu am ci benn rakk waxtu woo war na waaye kii moom parce que mu dem moom daa pare takk-takk bi mooy su fekkee dégg nga euh, asak waxtu wi dafa dugg te yow warul la su boobaa dootu la dootu la war ci ba mukk waxtu wi dafa dugg te fekk jamono bay waxtu bi dugg warul woon même bu la waree ci biir li def yi ci waxtu ko war a génn it loolu mooy yow juddoo góor xaar ba jant bi so nga door a judd boo fas yéene nga xaar ba jant bi so xam nga ku juddoogul ak mu dem ko waru boo xaaree ba jant bi so nga door a judd soo jàppee ci wax ne ci guddi gi nga ko war a génne su boobaa yow asaka mutum koor du la war lu tax du war ndax waxtu bi dafa dugg ba pare mu door laa war kon boo jàppee ci wax ñu njëkk ñi ne rek dangay bi soo dégg nga euh, dugg nga door a boo jàppee ci wax ñu njëkk ñi bu ko asaka koor du war boo jàppee ñu ne fajar nag lañ ko war a génneel su boobaa asaka koor daan la war ndax yow juddu nga te waxtu bi duggul kon asakaay moo tam ko war a jàppal ne bu waxtu bi duggee mu yor <coughs> laa war yow wàcc na alhamdulilah bu waxtu bi duggee mu yor laa war yow wàcc na ni koo ne dañ ko jur jur njëkk jant bi di gannaaw bu jant bi sooyee la doon juddu kooku ñu wax ne ci guddi ko war a génne bu jant xasee soo kooku bu dee waxtu yi nga jàpp asaka ji warul ndax jant bi sono ba pare mu door laa war waaye waxtu bi ba pare mu door laa war yow kon wàcc na war waaye nag boo jàppee ñee fajar la kooku yow boo xoolee war na la sa waxtu du wóor waaye boo ji doon gannaaw fajar moom su boobaa ñoom ñaar ñëpp yam eh, it bu fekkee yow xamoo dangaa ñàkk ba jant bi soo nga door a xam su boobaa doo génnaa sa kaay mutum koor ndax yow ba mu lay war boo fekk na waxtu dugg ba pare boo jàppee si wax ñu njëkk ñi dégg nga bu dee si guddi a génne bu jant bi sooyee te da ngaa xaar ba jant ba pare nga door a am wàcc na la doo ko génne dégg nga su fekkee nag dégg nga soo xaaree ba jant bi soo nga door a am yow doo génne asaka am boobu fekk na waxtu yu génn ba dee ci waxu ñaareel génne nag bu baax da nga génne am boobu waxtu fajar yu jotagut dégg nga amaa soo xaar boo ñàkkoon moom xaar ba gannaaw fajar nga door am comme ñu naan ñëpp ci yow asaka du la mutam koor du la war nekk noonu su fekkoon ne dégg nga euh, waa la xaar ba jant bi so dégg mu door a mu door a tuub su boobaa asaka mutam koor du war boo jàppee ci wax ci wax ci wax ci njëkk ji ndax moom dafa judd ba pare dafa euh, waxtu bi bu dugg ba pare mu doo ko war dama naan saa yu waxtu bi duggee ba pare mu war laa war ah a affaire waxtu wuñ ko war génn bu doo ko génn kon su fekkee yéeféer la woon ko waru ko mu xaar ba jant bi soo bu ko defee nag mu door a mu door a tuub bu dee da nga jàpp ne guddi bi dañ ko war a génne asaka waru ko bu dee da nga jàpp ne ci fajar dañ ko war a génne nag su boobaa asaka dana ko war ndax moom ba koy ba koy euh, euh, ba muy tuub asaka mu tam ko war ko war boobu waxtu bi duggagut dégg nga takk-takk bi daal mooy su fekkee waxtu dafa dugg ba pare mu door laa war kooku asaka yi mutum koor doo doo ko génne su dee dalaa war avant waxtu dugg nag su boobaa dana génne asaka yi mutum koor ki nekk yéeféer kon bu fekkee dafa xaar ba jant bi so mu door a tuub ah su boobaa boo jàppee ci ñu guddi gi lay war bu jant bi sowee kooku asaka mutum ko waru ndax dafa waxtu dafa dugg pare mu door koo war boo jàppee suñu waxal nag fajar la su boobaa su koy mu ko ko war na ko fay te waxtu yi dugugut fajar moom ñoom ñaar ñëpp ci am koo gudd gannaaw si kaay mutam koor dégg nga yooyu misaal la ci ki nit mu takk jabar xam nga koo takk yaa ko war a génnaaw si kaay mutam koor kooku danañ ci ñëw bu fekkee da ngaa ba yent bi so nga door a takk soxna su boobaa bi dañ naan la asakaay mutam koor warum la bu dee da jàpp ci ñuy wax ne guddi gi la war bu leen fay ndax yow ba ngay war a génneel asaka soo asakaay mutam koor boobu fekk na jant bi jant bi sof maanaam waxtu yu dugg bu dee jàpp ne fajar la lañ war a génne asakaay mutam su boobaa boo jant bi sooyee nga takk jabar a génneel soxna soobu asakaay mutam koor ndax ba lay war ci soxna si boobu waxtu duggut amma boo xaaree ba nga naan fajar na door laa may sàmm soosu kooku moom doo ko génneel asakaay mu doon koor yow jëkkër ji ndax dégg nga lay war balay dundam di war bu fekk na waxtu wi dugg ba pare bi la waxtu bi jeexut kon daal asakaay mu doon koor mu ngi noonu saa waxtu wi ba pare mu door laa war yow boobaa doo ko génne kon nag boo xaaree ba nga naan fajar mu war la mu door laa war ba naa am fajar mu door laa war kooku génn wax na mooy doo ko génne boo xaayee nag ci guddi gi la la door a war ni ki ci guddi gi nga door ci guddi gi nga door a tuub wala ci guddi gi nga door a juddu wala ci guddi gi nga door a takk soxna yooyu yëpp boo xam ne laa war gannaaw jant bi sooyee boo jàppee su ñu guddi gi la ah, la war su boobaa doo ko génne ndax laa war ba pare waxtu bi boo jàppee su ñu ne la nag su dana la war ndax war na la te waxtu bi dugg boo jàppee ci ñu ne bu digg war ndax waxtu bi dugg na ba pare mu door war boo jàppee ñu ne fajar la dana war ndax war na la te waxtu bi dugg naka noonu it su la wàccee su fekkee asakaay ko dalaa wàcc gannaaw bu waxtu wi duggee yow da nga ko génne asaka ndax ba muy wax bay waxtu wi dugg fekk na mu la fekkee dalaa wàcc te waxtu wi duggagul asaka asaka moo koo doo ko génne kooku it wutee boobu mën na cee feeñ moom la joxe misaal ci ku dee yow bu fekkee dañoo xaar ba jant bi so jant bi daa so ba pare nga door dee ah su boobaa yow boo jàppee si ñu ne bu jant bi soyee la wax su boobaa da nga génne asakaay mutum koor ndax bor la bu tekk su dox yow ba ngay dee fekk na mu war ba pare daf laa war ba pare nga door dee maanaam mu door la wàcc su boobaa da nga koy génne kon képp ku xam ba jant bi soo mu door a dee dana génne asakaay mosum koor su jàppee dafa su fekkee dafa jàpp si ñuy wax ne fajar bi la euh, ci euh, jant bi soo lay wax bu fekkee dafa jàpp ne ñu wax ne fajar la su boobaa da ko war a génne ndax moom dee na te waxtu dugg daa ngi jàpp foofu bu baax naka noonu it bu fase woon jabaram gannaaw bu jant bi sooyee la ko door a fas xam nga koo fase warutoo ko dundal dégg nga bu fekkee fase mu facc la dama fase jabaram fase mu facc nga xam ne wartu koo dundal waaw jabar bu ambut te fase na ko fase moo xam ni dog na diggante bi dog na hmm? fase mu facc su boobaa wartu koo dundal kon su boobaa bu dee gannaaw bu jant bi soyee la ko fase dañ naan na nga ko génnee asakaay mu dem ko soo jàppee ci ne bu jant bi soyee la war da nga def laa war sama bu fay nga doo ko fas kon bor la bu yéen ak fajar la nga jàpp su boo ko fasee ah, gannaaw bi yonent bi dara ndax dégg nga mbir mi wàcc na la te waxtu bi duggugut bu la wàccee te kooku doo ko doo bu fekkoon da am xaar ba jant bi soo ba war a ñàkk boo jàppee si ñu guddi gi la da mutum koor ndax yow ba nga ba lay asaka ji di wàcc boo fekk ne waxtu dugg ba pare xamoon nga ba waxtu dugg bu Euh, ba ngay ñàkk bu fekkee waxtu dugg ko da nga génn bu dee si guddi gi rek boo jàppee ne fajar nag nga ñàkk si guddi gi doo génn dafa ba mu lay wàcc boobu waxtu bi boobu waxtu bi su fekkee avec ay mutam koor daf duggee la la door a war doo ko génne gannaaw bu waxtu bi duggee la war doo ko génne bu dee gannaaw bu waxtu bi duggee la la da nga koy génne dégg nga jàppal loolu bu dee gannaaw bu waxtu bi duggee la la asaka ji door a war doo ko génne comme misaal yi ci jox ku juddu gannaaw fajar foofu boo jàppee ci ñu ne guddi gi la su boobaa doo ko génne ndax gannaaw la da nga ko na war naa la te waxtu boobu bu dee gannaaw bu waxtu wi duggee la la war jàppal bu baax doo ko génne bu dee bu waxtu wi duggee la la bu baax danga ko génne kon daal fa ñuy xool mooy bay waxtu wi dugg bay waxtu wi war na la wala warul la bu dee jamono buy waxtu wi dugg na mu war la moom kooku moom benn wax la danga ko génne waaw moo xam gannaaw gi wàcc na la wala wàccul la jamono buy waxtu wi dugg war na la danga ko génne moo xam gannaaw gi la wala wàccul la jamono bay waxtu dugg warul la doo ko génne moo xam gannaaw gi war na la wala warul la loolu na yom yomb naa tax kon jamono bay waxtu dugg la ñu xool jamono bay waxtu dugg bu la waree da nga ko génne moo xam gannaaw gi da ngaa mujj ñàkk ba waratul la wala da ngaa fas sa wala da ngaa dee lépp si yam bay waxtu bi dugg war na la dégg nga su boobaa da ko war a génne moo xam gannaaw gi wàcc la wala wàccul jamono ba waxtu bi dugg wàcc na la waru la ni ki da ngaa ñàkkoon wala takkagoo woon ndaw wala juddoo goon wala yéeféer ngoon jamono bi waxtu bi daa warul la woon gannaaw ga bu la waree it doo kon moom daal moom bokkut ak julli ak yooyu <coughs> julli moom duñu xool jamono bi waxtu dugg rek même bu dee si biir waxtu la mu ji waaye da nga war a julli waaye mu tam koor moom jamono bu muy dugg la xool bu dee dugg war na la mu tam koor gi war la di la gannaaw gi def la wàcc bu dee jamono bu dugg warul la asakaay mutum koor gi warul la di la gannaaw ga daf war te bu doon julli jamono bu muy jamono bay waxtu bi dugg bu la julli gi waree it boo amee nganta mu wàcc la ci biir waxtu bi da lay wàcc jamono bu muy dugg amutoon mbërëg set na waaye bu mbërëgee ci biir waxtu bi it jamono bu waxtu asakaay mu dem koor ko dundoon jamono bay waxtu wi dugg asakaay mu dem koor war na la gannaaw gi boo amee ngànt mu wàcc la it da nga ko war a fay moom jamono bay waxtu wi dugg bu la waree gannaaw nga am ngànt ni ki mbërëg wala yéeme noonu wàcc na la dégg nga julli jamono bu muy dugg bu la warutoon ni wi jeex mu wàcc la it da nga ko a jul dégg nga asakaay mu dem jamono bu muy dugg boo amoon ngànt nga xam ne warul la gannaaw ga bu ngànt gi dañee mu nga war ko génne doo ko génne kon moom boo xoolee contraire julli la foofu te gannaaw boo ko bu baax danga ko takk dégg nga <coughs> wajur san dagan ixraaj waa génne asaka jooju xab la yow mi ni ci bis wa salaasati ak bis dégg nga mu dawal moom ñaari bis rek la wax dégg nga kon asakaay mutam koor mën nañ koo génne njëkk fekk ci ñaari fan wala ñetti fan loolu mën na nekk wala tasxus dorot ba mu di zamaniha ci wéyeg jamonoom moom nag jamono bu paasee du tax mu du tax mu wàcc la bu fekkee daal jamono bay waxtu bi dugg war na la rek war nga ko génne wala boo avant waxtu bi dugg war na la booba war nga ko génne di la <coughs> ah day nekk boot sa bopp bi rek lu mu yàgg-yàgg soo ko mënee war koo war koo génne dégg nga waaye nag wax naa ne bu fekkee jamono bay waxtu dugg warul la woon ngi dafa fekk ci doogoon wala yéefeer nga wala limee noonu ah su ah, man nga ko dégg nga tut foofu duñ ko jox illaa li faqirin lu mooy ku ñàkk xurrin kay gor muslimin kay julit parce que gars duñ ko jox lu may koo xam ne ku ñàkk la te nekk góor nekk julit kon kenn du ko jox ko am du ko jox xeefeer kenn du ko jox it jaam hmm, dégg nga hmm. waye moom saamun ñaari kilo la man xaali bi xuuti ahli baladi ci lu not ci dund ñoom dëkk ba al muslimi wal julit al xuri kay góor al mukallafi kay mukallaf al musibi kay aji xoomal an nafsi war na ko génneel boppam wa am man a képp koo xamante ne dana ko war nafaqatu dundam mina muslimin si yooyu xaasatan dong dégg nga bil xaraabati si jege ñaare kal awlaad yi ni ki doom yi bi riq ak ci jaam kalam bi ni ki jaam yi wa bi xëyri ak ci lu jege ñaare ak jaam te ki jabar wa xaadimiha ak mm, liggéeykatam bi nga xam ni ab jaam la waxuñ na ko liggéey mu di ko fay kooku moom du ko génneel wa in kaana dina nekk na moom jabar jooyu nga liyatandi aji moo ko war a génne asaka ay mutam koor moom jëkkër ji waaye nag ci sartab mu takk ko avant waxtu di dugg maanaam takk ko avant guddi gu njëkk gi euh, bu dee ci da nga suñu wax ne ci guddi euh, jant bi sooy la war ci guddi njëkk gi wala boobu mu takk ko avant fajar waaye bu xaaree ba fajar jot mu door koo takk moom kooku moom euh, ñoom fekkoon ñu war koo dundal ci jamono avant ñu koy takk rek ni ki waajuram yi ñoo ñoo ko war a génne asaka ay mutam koor parce que dafa xaar ba fajar jot mu door koo takk moom jëkkër ji waru ko koo génne loolu leer loolu nañ ko ci gannaaw dégg nga andagaay musam koor lu jamono ji passé passé du la wàcc war nga koo génne lu mu yàgg-yàgg su la waree daal fa waxtu bi dugg wala gannaaw wala jamono bay waxtu bi dugg la la war su boobaa dootu la wàccee ci boo ko génnewul da nga ko fay ñaari kilo lay doon da ngay xool lépp ci lay waa dëkk bi ni dundee rek nga génnee ko ci loolu boo génnee ci lu gën a foor mu baax waaye boo gën a génnee ci lu gën a xees la ñuy dundee du baax jullitu ko war a génne te nekk gor nekk mu kalaf maanaam am xel tey jot baax kon xale du ko génne waaye danañ ko ko génneel jaam du ko génne waaye danañ ko ko génneel naka du ko ko mais fer nag moom du ko génne duñ ko ko génneel dégg nga te duñ ko ko joxit kon jullit bu xam moo ko war a kon bu ñàkk wàcc na ku ñàkk du génne azakaayam mutam koor lu mooy mu am avant waxtu wi di dugg dégg nga wala boog jamono bi waxtu la am su boobaa dana ko génne su fekkee dafa am gannaaw bu waxtu waaye ci biir waxtu bi ndog jot ko mu ñàkk su boobaa kooku dana ko génne kon ku ñàkk kooku moom dana ko génne yaa ko war a génneel yow mu mel noonu di jullit tay góor te mu kallaf ta am avant waxtu bi dugg wala jamono bi waxtu bi dugg yaa ngi am di ñàkk nga gannaaw waxtu bi duggee yaa ko war a génne yaa naf ci sa boppam ak képp koo xam ne yaa ko war a dundal kon kooku moo ko war a génneel boppam génneel ko ñam war a dundal te ñuy jullit amaa kam war a dundal bu dee xeeféer du ko génneel kon jullit dong la koy génneel te jullit boobu na nekk ko jege ni ki doomam ñam war dundal te lay misaalal mooy say doom wala sa waajur yi ñàkk yaa leen war dundal wala boog say jaam ñooñu moom si njaameel nga leen dundal doom yeeg waajur yi jege ñaare nga leen dundal waaye sa njaam moom si njaameel nga ko dundal kon sa jaam wala sa doom wala si waajur yu ñàkk teew am nga wala sa soxna wala boog sa jaam bi nga xam ne daf jaam la ñooñu yaa a dundal min daan mi ne waxut ci min daan moo xam ne koo jàpp di ko fay weer kooku moom waru koo dundal waru koo jox azakaay mutam koor dund gi daal baax na waaye nekkul ne dundam jaam bi ngay liggéeyal dundal ko yow la wax ñi nga war a dundal muy sa doom ak sa waajuru ñàkk dégg nga ak sa jabar ak sa jaam muy ñaareel war a dundal yaa leen mu dem koor dégg nga wa xawul naa ndax ba mu jeex ixtiraam nañu mooy dafa mel kaafir ci yéeféer du génne asakaay mu dem koor waaye xiif ak jaam du mu dem koor wala moom si aji ñàkk du génne asakaay mu dem koor waaye nag ku ñàkk wax na ne su fekkee dafa ñàkk avant waxtu bi euh, euh, di wala jamono bi waxtu bi dugg fekk na mu ko mu ñàkk su boobaa a génne asakaay mu dem koor dina xoomal na gannaaw bu waxtu bi duggee du génne ndaw ndax na jamono ba muy war mu fekk na mu wàcc ko dégg nga waaye su dee xam na nag jamono bi waxtu bi dugg wala avant waxtu bi dugg xam na gannaaw bu waxtu bi duggee nag ah la door a ñàkk kooku moom dana ko génne ndax bor la rek bu aju ci bopp bi parce que moom jamono ba muy ba ba mbir mi di waat fekk na mu ngi xam moom war ko kon gannaaw ga bu ñàkkee it euh, du tax mu wàcc ko kooku moom leeral nañ ko leeral loolu nañ daal ne asakaay mutum koor dañuy xool ak jamono ba muy dugg bu dee jamono ba muy dugg war na la waaye bu avant muy ko war a génne dina ci biir waxtu yi wàcc na la bu fekkee nag la wala avant muy dugg avant jamono boobu warul la su boobaa doo ko génne la war ci waxtu wi loolu leer na ñi xam ne ñooñu ñàkk ku ñàkk ci ñoom ñu ko waxee ak jaam ak xeefeer fay naa naka ñoom laa tëji budu waa alayhim ci ñoom wala moo solo ñu ñàkk woo moom ëllëg mooy xam ni laa yaf des loo ñeel ko laa yaf des loo ñeel ko an kuuti yow mii ci dund bitam saawun ñaari kilo wala ji soo am mënuñ salifu ku ko lebal yaaw ñaari kilo yooyu ku ñàkk mooy koo xam ne avant waxtu bi dugg wala jamono bi waxtu bi dugg fekk na yàlla natt ko dara ndax xaw la bu nattee dund bi tam ñaari kilo rek moo ci des hmm? te xamut ku ko lebal kooku moom asakaay mu tam koor wàcc na ko dile gannaaw ba yàlla def na mu am dund bu bëri sax comme que daal jamono bay waxtu bi dugg fekk na mu ñàkk te xamut ku ko lebal jamono boobu kooku asakaay mu tam koor wàcc na ko amaana bu dee ñàkk na jamono bi waxtu bi wala avant waxtu bi dugg fekk mu ñàkk waaye nga xam ne bu nattee dundam ba pare bu dee sax lu mat ñaari kilo te mutam koor ah, am na ku ko lebal su boobaa nag ko foofu kooku war ko lebal